asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki àdduna bi mbokki jaspora seen doom seen xarit seen soppe seen doomu ndey Ibrahima Ba moo leen di nuyu di leen euh, ziara te di leen balu àq te di leen balaax di leen présenté benn société bu ñuy wax aadama Holding yàlla dogal nag man Ibrahima Ba maay directeur général bi Adama Holding lan mooy Adama Holding ak kan mooy Adama Holding Adama Holding benn société la boo xamante ni day liggéey ci wàllu bâtiment day defar ay briques ànd ak ay ingénieur yu xareñ yoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu tabax ànd ak ay ingénieur yu xarañ yoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu euh, électricité ànd ak ay ingénieur yu xareñ yuy liggéey ci wàllu plomberie ànd ak ay ingénieur yu xarañ yuy liggéey ci wàllu balofanage yi xew léegi ci salon yi ak kër yi lépp loo xam li wàllu bâtiment la Ibrahima Ba da ciy yëngu ànd ci ak ay ingénieur yu xareñ yu man seen liggéey Adama Holding nak lan mo andi turu Adama Holding man Ibrahima Ba Yalla dafa dogal ni suma wajur bu jigen mi ngi tuddu Adama Njay Yalla dogal mu yar ma base bi may nek xale bu ndaw ba ni moy wuyje borom bi Yalla dogal ni sama lepp sama parcours yep man ak mom ñoko def mu doon kenn ci man ko xamanteni ni mënuma ci mom lenn lu fi ak ma ngi dundu turam wërta fay ci sama wet ma jël suma société tudde koko muy Adama Holding maa ngi ñaan yàlla yàlla na turu bi wuyu borom bi moom mi nga xamante ni mooy Adama Ndiaye. bon yàlla dafa dogal ni ci wàllu bâtiment euh, dama nekkoon ak ay nit di liggéey ak ñoom ci wàllu bâtiment bon ma géré woon benn usine boo xamante ne benn usine la buy liggéey ci wàllu brique yàlla dogal ñu yóbbu ma fa ma gere lépp commercial technique bi ñuy monter usine bi yëpp yàlla dogal na man maa ànd ak tubaab bi ñu monter ko. biñu démé ci lolu ci la amé initiative am xalaat bi xamné li dal normalement war naa dem man défal ko suma bop ci lolu la dem and ak ñom ba dem ba ci yag ma xamal leen ni carrément wax deug yalla fiñ toll ni nak dama bëgg dem liggéey li suma bop pour ma génn sax doon metti woon na leen lolu wax deug yalla mais par la suite dal ma xamné dal wax deug yalla dem ak suma bop dal ak euh, moy li nga xamanteni moy limay li ci la génn créer sama yef bop man li wax lolu moy actuellement saabu mënta fot bopam li may wax mooy suma société laa yor yor suma ay euh, ingénieurs yoo xam maa ñoom ñu ngi ànd ci wàllu liggéey bi lépp loo bëgg ci batiment boo ñu contacter aadama Holding dina ñëw waxtaan ak yow ba juboo su dee wàllu tabax la dina la tabax ba de jox la say clé bu ñu waxtaanee ba juboo ci wàllu euh, ay maçon ay ingénieur maçon yu mucc ayib ay ingénieur plomberie yu mucc ayib ay ingénieur électricité yu mucc ayib même balofanage peintre ñëpp yu mucc ayib incha allah rabbi daal bu fekkee ni yàlla dogal na ba ñu juboo ci wàllu liggéey bi incha allah doo ci am la naxar te ay briques yu mucc ayib lan lay defar incha allah bu soobee yàlla. bon société bi ku ci bëgg a jot am numéro téléphone yi ñu ngi fi boo wootee directeur général bi di ko jot am na commercial ah, ñëpp. lii la 77 540 94 55.

Fi ak Dundu, sa di la tout est possible dans la vie lu nekk man na nekk man la gëm ci sama aduna yépp lool la ko def ba andak suma wajur. ba képp ko xam na suma diggante ak suma wajur. lepp luma am ginaaw yalla mom la lepp luma ma mel ginaaw yalla mom la ma ngi wax ndaw yi nañu gor am jom déggal seeni wajur tarbiyu leen fi disponible nañ pour képp ku bëgg liggéey képp ku bëgg ay briques yu rafet ay briques yu wóor ay briques yu dëgër boo seet see Adama Holding dina la jaay ay briques yu rafet livré la ko ci bu délai bi ngeen waxante yéen ñaar képp ku bëgg affaire maçonnerie batiment ku la tabaxal boo ñëwee ci Adama Holding bu ngeen waxalee bu juboo di ngeen liggéey mu livré ko ci délai. peintre électricité lepp dañ koy def inshallah allah lepp lo bëgg même man nga man nga man nga man nga tabax sa ba pare bëgg polomerie bo ñu contacter ñu andi suñu ingénieur ñu xolal la ligéel la man nga tabax ba paré sax bëgg euh, électricité bo ñëwé ñu contacter ñu liggéey inshallah ñun dal ñu ngi fi pour ñëpp ubbil nañ suñu buntu bépp doomu réew mi bu bëgg a inshallah rabbi ubbil nañ la suñu buntu pour nga ñëw ñu liggéey. sant na nga di wo autorité yi nak di wo maire bi nga xamanteni mom lañ nekkal fi ci Kër Moussa muy Momar Cissé ubbil nañ ko suñuy bunt bépp projet bu mu am ci wàllu batiment bu ñu contacter dinañ ko liggéey incha allah ca na mu waree képp ku taxaw fii ci réew mi bëgg liggéey ci wàllu batiment wëral nga seeti Adama Holding jafe wuñu metti wuñ loo ci bëgg dinañ la ko defal incha allah rabbi merci beaucoup jër ngeen jëf. moo xam ngay agent BTP wala société bu am projet tabax wala ngay ab particulier bu nekk ci chantier. xibaar bii yaa ko moom daw si gaaw si Adama Holding seen partenaire bi leen di gunge ci bépp projet tabax bu ngeen am dénkuñu seeni projet di ngeen fi fekk lépp luy matériel mu xam wàllu construction bâtiment wala nga soxla fer ciment ay briques béton ak lépp lu xeetoo construction Adama Holding garantie ingénieur yu mën seen liggéey te yàgg koo def lool di ko liggéey engagement bu wóor si qualité njëg yu xéewale teg si délai de livraison bu gàtt ñëw leen xool si suñu mën-mën adresse bi benn rek la Adama Holding Dakar téléphone 77 540 94 55 wala sax 76 683 90 68 mën nga ñoo yónnee itam courriel si adresse Adama Holding 534 arobase gmail.com ak Adama Holding tabaxal say gént